أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suratul maida tey nuy jël ñeenti aaya ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala muy aaye 101 102 103 104 ñeenti aay yi nekk sunu kanam ñeenti mbir lañ ci sunu borom subhanahu wa taala di jàngal mooy hidayatul ayat bi ci njëkk ci li ñuy jàngal ci aay yi nekk sunu kanam mooy kiraahiyatul ilhaafi fi suaali wa taqauru fi l asila wa tanattuu fiha mbokk yi nun ñëpp lu nu war a ànd xam yëg ko mooy sunu borom subhanahu wa taala daf nuy tere taral laaj nit koo xam ne làmmiñam bi laaj rekk moo ci nekk day laaj lu mu bëgg a xam ak lu mu bëggut a xam laaj pour sayite laaj pour moke foo ko fekk guddeeg bëccëg laaj rek moo nekk ci làmmiñam loolu dañ koy tere ab jullit ñaareel bi mooy ku xamul moo war a laaj bëgg a xam wala ku xam bëgg a jàngale moo war a laaj beneen bi mooy booy laaj waroo xóotal laaj bi benn waay fekk na imaam Ahmad mu toog ci jàkka ji di jàngale waa ji ne ko imaam mu ne ko labbayk mu ne ko bu may julli xam naa sama kanam fan lay jublu loolu yàllaa ko wax na ne jublu xibla léegi nag sama problème mooy man imaam su may sangu dugg ci géej walla dex di sangu sama kanam xawma fan lay jublu imaam ahmad xool waa ji ba ci yàgg mu ne ko li gën ci yow mooy nga xool fi nga simmi sa yére balaa nga koy jël nga ñibbee yaramu neen xam nga dëgg-dëgg laaj su ma duggee ci géej di sangu wala su ma duggee ci dex di sangu fan laay jublu loolu loolu am benn njëriñ léeg nga dégg nit muy laaj laaj yoo xam ne amul benn njëriñ loolu ab jullit dañ ko war a tere wala li muy laaj am na njëriñ sax mais da ciy xóot xóotlu di jafe-jafelu léeg-léeg nga dégg yenn saa yi gars yi ñu ne benn waaye da doon tukki ñu soppi ko xeer keneen ki di tukki ñu soppi ko garab ñoo ñaar léegi naka la seen soxna di def ak seen njaboot xam nga dafa am yoo xam ne ki koy laaj sax xam na ne laaj bi muy laaj amalu ko njëriñ kon yàlla daf ñuy tere ñuy laaj waaye ñuy xuutal laaj yi loolu dañ koy gis tey ci sunu aaya yi mooy wa taqaur fil asila laaj laaj bi ba pare di ko xóotal di ko gas wala di orienté waa ji pour mu tontu la lii nga bëgg nga ko fay jéem a jengal pour mu ñëw fa loolu mbokk yi dañ ñu koy tere ci diine ñaareel mooy xurmatul ibda fi diin dañ ñuy tere sos ci diine sos bokk na ci li yàq islaam mooy sos démb benn mbokk dal na ko yàlla fay mu ngi ci jàkk ji yónnee na ma benn vidéo benn son benn waay nee na téere sàngam walla waxu sàngam ni alquran gëlee silaabeer noonu la loolu gënee alquran nee na alxuraan ni mu gëlee silaabeer wax jooju noonu la gëne alquran est-ce que ab jullit gis na ci kaw suuf lu gën téere yàlla ndax ma ne gis nañ ci kaw suuf lu sunu bët tegu ñu koy jàng di ci yaakaar tiyaaba mbokk yi loo xam ne moom moo gën alquran xoolal ab jullit naka lay amee pas-pas di tollale silaabeer ak alquran silaabeer daan alquran ak silaabeer loolu ab jullit dina ko def mais dafa mel ne jamono yi moom ay nit ñu ngi ci Sénégal dañoo xabtalu pour doyadal islam ak yonent bi ak yàlla ci tiyaatarkat yi ci tarixa yi parce que waa ji li mu wax ne ci tarixa la bokk jël jël kilifaam di ko yëkkati ba tiimal ko kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam jël alxuraan di ko doyadil di ko di ko nattaleeg silaabeer ndax loolu tey ab jullit dina ko def loolu yëpp li ko waral mooy sos ci diine moo tax diine ji ku ci sos dara rek luñ ci def am nga ci responsabilité moo tax yàlla daf ñuy tere ñu sos yonent bi lu mu indi doy na sëkk kenn ci ñun mënul def yonent bi lu mu indi ba mu jeex kon jarul sos lan mooy sos mooy yi ñu boole diine ci diine te bokk ci mooy julli yi ñu xewal ak ay fay faat ak julli tam xarit ak julli nisfu saabaan ak da ngay gis julli yoo xamante ne am du farata du sunna yàlla santaane wu ko yonent santaane wu ko nga gis nit ñi def groupe di ko julli di ko julli wala ay façon ñaan yoo xam ne wala ba ci jàkk yi buñ jullee ba pare démb dend naag benn waaye ci benn jàkk tàkkusaan lañ doon julli xaw ma déedéet astaghfirullah benn julli la daal ci waxtu yi juróom dend naag benn waaye boo xam ne bi ñu sëlmalee daa gis waa ji naan nii may maa ngi jaaxle kii laka lay fu lan lay fóon lan lay tegee bakkanam loxoom ci si ci basang yi ci sijaada yi ci moket yi di fóon ñetti yoon ñeenti yoon juróomi yoon loolu kii lan lay wax lan la bëgg ak lan lay def nii ci diine ci diine laa wax amul kenn ci ñun lu mu bëgg a def lu dul yonent bi jàngal na ko loolu muy def nu mu koy defee ci diine laa wax de ci diine bii ñuy dund muy islaam amul kenn ci ñun lenn lu muy def lu dul loolu mu bëgg a def yonent bi wax na ko nu mu koy defee yonent bi wax na lu mu fay wax ak kon léegi li ngay dem di jël ci keneen loolu ban njëriñ la la amal yow kii di la jox ak yonent bi ku gën a foor ah waaye léegi comme nee na yonent bi moom du dara waa ji sax dem nee na kooku seen kooku seen waa jooju allahu akbar waa ji wax yu garaaw la nit ñi di wax fan yi ci diine bi mel ni iblis moo leen yabal xoolal naka la nit di waxee yàlla dafa ne yonent bi demal nga tànn yonent bi fekk jullit yi mu tànn leen keneen yàlla ne ko demal nga tànn mu ñëw tànn ñeneen ñooñu mu tànn moo gën jullit yi lul ñi Muhammad tànn nee na ñooñ ñooy jullit ñi keneen ki tànn ñooñ ñoo gën jullit yi Muhammad tànn ndax ñi kooku tànn ñooñu loolu lañ ak jullit ñi Muhammad tànn nag jullit kese lañ nag kon ñoom wóorul seen dugg àjjana wóorul loolu nu ko nit di waxee nu ko ab jullit di waxee ba pare def ko ci ay vidéo di ci whatsapp bi ak youtube bi ak facebook bi mu ngi tas islam moo tax sos ci diina baaxul te li yëpp ci nit ci ci kër yi la waaw nit ñoo xam ne xamuñu jànguñu sharia xamuñu islam amuñu pas-pas bu wér xamuñu dara dara dara ci fiq fi mu nekk nii ñooy wax lu leen neex ci diine bi di tuutal yàlla waaw nga defe ne yàlla dina ñëw di di seet si nit am ku topp tànku yàlla di dox ah ñëw bu fekk sëriñam toog mu ne ko ana waa ji ma gis mu dugg fii mu ne ko mu ngi ci wanag wi mu ñëw fekk yàlla takk ndigam di liggéey mu ne ko ah yow ndeke da ñuy nax nga ne yaay yàlla ba pare di liggéeyal sëñ diw nekk fii ci ruq bi di liggéey loolu ab jullit dina ko wax ab jullit laa wax bu gëm alxuraan ak sunna dina wax lii yooyu yëpp tey ay son la mu ngi ci biir facebook beeg youtube beeg whatsapp yeeg imo yi ñi ñi di ko paasanti nit ñi di dugg seeni ruq di def ay catastrophe ci islam di ko yónnee seeni taalibe loolu diine la moo tax sos ci diine mbokk yi li gën a bon li yàq islaamu Sénégal mooy sos bàyyi li yonent bi indi woon jël li keneen indi dañu tere sos ci diine lu tax lu muy indi wa annahu sababu wujubu shirk fi nnas ndax loola tax nit ñi di bokkaale yàlla ndax da ngay topp kenn koo xam ne li muy def bokkaale la nga ne ko li bokkaale la mu ne diw diw moo ma ko sant wala diw moo waa ñoom diw ñoo koy def ah am benn benn ba- benn borom xam-xam bu ñuy tagg am na 15 jabar 15 doom di tagal di ko tegaleel ay 15 15 15 15 jabar waaw diw mooy diw am na 15 jabar 15 doom 15 15 di lim ay 15 ba 15 yi kenn xamul nu mu toll 15 jabar ku ko am jullit nga mbokk yi 15 jabar ku ko am jullit nga ngeen defe ne 15 jabar su ko jullit amee fu mu ko jëmee ñaata la la sariya may lu waral loolu yëpp mooy sos ci diine tey ku mel noonu booy wax ak moom mu ne la non non yow li li nga li nga gëm man man gëmuma sariya lu dul sariya du lislaam lu dul sariya du lislaam du diine ku ci dee di nga xam kon jullit yi mbokki jullit yi nanu góorgóorlu sàmm suñu bopp sàmm suñu njaboot la yonent bi doon wax ci axiru zaman lépp lag yegg si na tey danañ jàng wujudu raddul muxtalaf fihi ila alkitabi wa sunna war rida bi hukmihima danañ jàng tey delloo bi nga xam ne war na ci ñun ñu koy delloo bis bu nekk li wuuteeg alxuraan ak sunna ab julit wax dëgg yàlla waru réer lu tax yow da nga am nattukaay sa nattukaay mooy alquran ak sunna damay faral di wax ne tey kenn ci ñun toog fii ci biir jàkka ji su génnoon léegi dugg ci bitig bi di jënd ceeb ne borom bitig bi jaay ma kilo ceeb borom bitig bi ubbi saaku bi tibb loxo yi ba mu fees ne ko nii ne ko dëkkal lu mu koy wax lu waa ji di wax borom bitig bi peese ko waaw looy def nii mu ne ko noo mat na lu waa ji di wax day insister ne ko peese ko lu tax ku la indil wax doo ko ne nañ ko peese ku la indil wax di la bëgg a gëmloo dara ci diine ne ko nañ ko peese fan lañ koy peese peese ñaata balance la am peese boo gis ñaari balance lay am de ah peese bi jullit ñaari balance la mooy alquran ak sunna tegal ci waxu yàlla ak yoxu yonent soo ko fekkul ci waxu yàlla di nga ko fekk ci waxu yonent bi jeex na moo tax yàlla mu ne bu ngeen wuutee ci dara sax delloo leen ko ci yàlla ak yonent tey misaal bu ñëw nit ñëwoon ne la bàyyil julli ndax da nga naan ko wax nga dëgg kii kilifa gu mag la lu mu ma wax dëgg la kon jaratul may julli déedéet da nga naan ko yow li nga wax foo ko teg mu ne nanga nga ne ko déet dañ koy peese mooy teg ko ci yàlla nee na wasinu bil qistaatil mustaqim dee leen peese mbir yi ci balance bi balance bu jub bi ban mooy balance balance bi mooy alquran ak sunna wa aqimul wazna bil qisti wala tuxsirul misaan yàlla sax suuf si loola teg pour peese bu jub mu am égal yépp yem léegi nag ñun wax dëgg yàlla lu nu wax rek li benn waaye nee na sénégalais boppam suuf su nangu la loo ko loo ci ji mu sax waaw loo ko ji mu sax benn waaye xëyoon daan ne démb man maa ngi fanaan arsh da ngay dégg ñu ne dëgg la dëgg la da ngeen a mën a weddi mais kii bu leen nee moog yàllaa nekkoon léegi war ngeen koo gëm bu kenn waaye ñëwoon ne asamaan si dina taw xaalis nit ñi dañ naan dëgg la kii mën na mais yàlla chaque jour buy wax ñan lay waxal ulul albaab borom xel yi nit ñi war nañu am xel xam ne diine lépp luñ la tuddal diine te jógewul ci yàlla jógewul ci yonente bu yeboo nga bañ cee sonn ndax boo ci defee tamit kenn du la ci fay dara da ngay sonn sa bopp lépp lu ñuy tuddee diine jógewul ci yàlla jógewul ci yonent bi yàlla santaanewu ko yonent bi santaanewu ko boo ko defee tamit da ngay sonal sa bopp bu dee ab julli la da ngay sonal sa bopp bu dee zikr da ngay sonal sa bopp jaamu yàlla boo mën a def te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digalu la ko da ngay sonal sa bopp yàlla du la fay loolu dafa war a leer ci ñun ñun waruñu sos waaye dañoo war a topp ndax lépp yonent bi jàngale na ko ba pare amatul lu ñu war a indi loo xam ne amul woon ci diine nga xam ne tey boo ko doon def tey ñun ñii di nekk fii ci jàkka ji suñ demoon léegi Mali gee jot ñu dem di julli foofu gee ñaata raaka la ñuy julli Mali ah ñaata raaka la ñuy julli ñeent loolu mooy farata ci ñun bu desee nag bu tukkee ñu wàññi ok soo demee Mali ñaata raaka nga fay fekk ñuy julli gee ñeent ñaar nga may fekk ñu julli timis ñaar nga may fekk ñu julli tisbaar soo demoon Màkka ñaar nga may fekk ñu julli timis ñeent ñaata la ñuy julli gee soo ñëwee Sénégal ñaata la soo demoon France ñaata weeru koor la ñuy woor waaw voilà amul soppi léegi nag nga ñëw fii fekk gars yi dajaloo fii di julli benn julli nga ni lii lan la ñu ne julli tam xarit ñu ne la sinhu ban aaya la ku ko santaane am nga problème nga ñëw fi fekk gars yi dajaloo di julli fay faat ah nga fekk waa ji julli ba pare naan nii wala naan nii nii nga ne ko waaye li ngay def nii lan la fii façon jaamu yàlla yu ne ngay gis façon jaamu yàlla mu ne ngay gis ku nekk ak sa jaamu yàlla ku nekk ak sa groupe boo bokk ak sa façon jaamu yàlla jaamu yàlla benn la amul wuute lépp li yonent bi indi penkook sow ndeyjoor ak càmmoñ ñépp a ko bokk alxuraan baa ngi nii ñun li ñuy jàngale ñeneen ñi jàng astaghfirullah foo dem kenn muum ko subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah mu des xoolal même boo ñëwee Sénégal da ngay gis ndax bëgguñu ànd da ngay gis ku nekk nag jéem koo changé même laa ilaha illa ku nekk ak sa la ilaha illa allah waaw d' accord ngeen ci loolu wala d' accord leen mais d' accord ma def ma def ma def terme yi léegi ngeen dégg ko ku nekk nga xam ne saa yoo waxee benn di nga xam ne bii am nañu ko moom la ilaha illallah la am nañu moom boobu am nañu moom la ilaha am nañu moom boobu am nañu moom la ilaha illa am nañu moom boobu xoolal façon bu nekk da ngay xam ne bii soo commencé rek bul eggali kii am na ko moom ñii ñoo moom bii pourtant la ilaha illallah kese la warul am nuroo ñëpp ko bokk soo nee la ilaha ñëpp ko jeex na mais dañuy dem di tàqalikoo ñii ñii non am na benn imam boo xam ne fatiha sax fatiha da koy changé beneen borom xam-xam dem ci moom ne ko mais yow sëñ bi yow ni ngay jàngi sa mu ne hee ñun ak yéen bokkuñu ku ne ko ha mu ne ko bokkuñu munoo fexe ba ma jàng ni ngay jàngee ndax bokkuñu mooy diine alxuraan duñ ko bokk bokkuñu dara duñ ko bokk benn téere la ñépp a ko bokk amul changement mais sénégalais yi la yàlla nattu sénégalais yi la yàlla nattu nattu li yonent bi wax dara lañ ci bëggul léegi yemuñ ci sax ba léegi dañuy jël ñeneen ñi kilifa yi di leen rombal yonent bi waaw di leen wan ne yonent bi ñoom du ñu moroomu yonent bi benn maa ngi benn vidéo waa ji moom dane même Muhammad mii ngeen di wax suñu waajee ku mën suñu waaje amul ku mu tollool ci yonent yi ñëpp moo leen mën même Muhammad mi sax suñu waajee ku mën ne ko ne ko ne xam naa yaa ngi koy enregistré doo ko génne nag doo ko génne waaye ma wax la dëgg gi rek gis nga ndeke am na ñu ngeen di gis ci mbedd yi ñu féttarlu yi ñuy def dañ lañ leen ko dee ci biir néeg yi ça le problème moo tax ñu nekk ci mbedd yi di dox yi ñuy wax parce que dañuy nekk ak seen kilifa yi ci biir ñu leen di dee yenn yi wala may ay taalibe nga daje leen ci benn néeg ne leen suñu wa man suñu waajee gën Muhammad ñooñu bu ñu génnee lu ñuy yóbbu lan lañ gisee ci àdduna bi ku gën Muhammad lan kooku juddoogul ku gën Muhammad juddoogul te du juddu pourtant ñu pourtant borom xam-xam yi fii sax ñoom dañuy wax loolu seen téere yi de xoolal Alaaji Maalik lu mu wax law lam yalux fi lfadail kawni talatuhu tabqa albariyatu fi zalmai allah mu ne bu Muhammad feeñu loon ci àdduna rek ñëpp jëm safara lan la Cheikh Ahmad Bamba wax lam yabdu misle Moustapha sirran wa jahran fil baraya sarmada mu ne ku mel ni Muhammad musta feeñ te du feeñ waaw léegi nag naka ngay déggee loolu ba pare daan ne diw moo ko romb te waajoo ñu nga naan moo ko romb moom lii la wax kon nañ delloo si xel yi xam ne jaamu yàlla amul farfarloo jullit yëpp jubli jullit lañ innamal muminuuna ixwa jullit yëpp ay mbokk lañ jullit yëpp a yem inna akramakum indallahi atqaakum ki ci gën mooy ki gën a ragal yàlla mais maala saf bëgg xëcc mbooloo bëgg xëcc ay taalibe bëgg xëcc ay groupe bëgg ñun ñoo fi gën a xumbale ñoo fi nangam moo tax nit ñi ñëpp ñu buub leen ñu war a dem safara ndax am na yoo xam ne ku ci yar nit ba mu dee safara la jëm bu demee yow yaa ko yóbbu waaw na yoo xam ne ku ci yar ay nit tàggat leen ci ba ñu dee safara lañ jëm te buñ demee yow yaa leen yóbbu moo tax sos ci diine dañ koy tere deuxième bi mooy lépp lu jógewul ci yàlla ak yonent dañ ko war a delloo ab jullit waru ko sax nangu su benn waaye ñëw di wax ak yow déglu ko ba mu wax pare rek nga ne ko li nga doon wax yëpp fu mu jógee bu la waxee ci yàlla jox lay tegtal yu leer ci alxuraan ñaareel bi mu wax la ci sunna jox lay tegtal yu leer ci sunna jëlal matt ko ci say dëgëj waaye bu waxee ba pare déggoo ci yàlla déggoo ci yonent ay kasaaw kasaaw kese la karaj karaj xiila wa xaala gasal pax ba mu sóot tuuf li ji su la nee la la nga ne ko li nga ma doon waxee mbalit la sànni naa ko mbalit dañ koy sànni kon loolu danañ ko jàng tey mooy lan delloo lu dul alquran ak sunna waaye war ridaa bi hukmihima war na noon nangu ñaar yooyu alquran ak sunna li ñuy jàngal ñaar yooyu ñu nangu ko buñ la ne yàlla nangu yàlla nee na waxal nangu naa buñ la ne yonente nee na waxal nangu naa yàlla ne maa kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasulahu amran an yakunu lahumul xiyara min amrihim warul jullit bu góor warul jullit bu jigéen yàllaa ko yonent wax ba pare moom jullit boobu mu naan waaye yàlla nee na maa kaana la wax maa kaana mooy yellul warul ci jullit bu góor ak bu jigéen aaya baa ngi ci suratu ahzab warul jullit bu góor ak bu jigéen yàlla ak yonent ba pare ñu naan waaye imam ahmad nee na isa qaala allah wa rasuluhu fa bil ayni wa ras su yàlla ak yonent waxee jëfe rek jeex na waaye ñu ne la yàlla nee na nga naan waaye loolu loolu jamono ju paase la woon waaw loolu ñun ñun dunduñu sharia ñun xaqiqa la ñuy dund ñun sàmba la ñuy dund ñun demba la ñuy dund su nit dundul sharia dundul lislaam te soo dundul lislaam doob julit saa yoo teggee sa tànk ci waxu yàlla ak yonent yëgal nga ne génn nga ci lislaam ba set wecc yàlla dafa weddi dàq ay nit seen ngëm fala wa rabbika la yuminuun hatta yuhakkimuuka fi ma shajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima yàlla nee na ñii bu ñu jullee nanguuma bu ñu wooree nanguuma bu ñu ajee màkk nanguuma bu ñu saraxee nanguuma lu dul yow muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu def la ab àttekat soo àttee ñu nangu du ñu am ñagg-ñagg du ñu am metit du ñu am lu lu leen naqari ci seen xol waaye dañuy nangu li nga wax waaw léegi bu ñu nee yàlla nee na ñu ne loolu mënut a nekk kon mbokk yi jamono jooy ju yonent bi doon wax day jëf egsi na moo ngi nii ñeenteel bi mooy xurmatu taqlidul juhal wa ittibaihim fi abatilihim aram na ci ñun ñuy roy ñu réer ñi nga fekk ku réer bu koo xam ne xamul dara ci islam nga koy def kilifa di ko roy di ko topp ku ku jàngul diini xoolal naka la nit di waxee man jànguma sharia xawma dara ci alquran ñu def la kilifa diine loolu Sénégal rek nga koy gis doo gis mukk Sénégal ku ne man defuma médecine waaye damay opéré waaw maa ngeeg jaasi maa ngeeg puso maa ngeeg ay lañset ku feebar ku ngeen ma indil dinaa xotti biir bi ak sama jaasi ji jël sama eau de javel ak sama saabu raxas biir bi ba mu set ñawaat ko ku wax loolu léegi ñu yóbbu la dig tëj la 10 ans kii dafa yabaate la ñuy wax wala benn waay dafa yor mbaam mu dóor mbaam bi ay yet ba sonn mbaam bi bañ benn waay ne ko sa mbaam mi dafa feebar yóbbu ko nga faju ko mu yóbbu ko ci mécanicien bi d'accord ngeen loolu ah ku am oto bu paan foo koy yóbbu ci mécanicien ku bëgg ku la tabaxal koy woo ku bëgg ku la ñawal foo jëm ku feebar fu nu la yóbbu ku bëgg diine nag dem ci ko xamul dara toog te naan waa ji la billaay yegg si ngeen te waa ji nee na man xawma dara ci islam sharia xawma ci dara ba pare kooku ñu bëgg mu wax ci diine lu baax lu muy wax day yàq te képp ku ko topp daf lay alag moo tax yeneen da topp ci yàgg mu ne innama axaafu aleykum ñu ne ah mu ne aimmatil mudillin allahu akbar xam ngeen lu ma ragal ci yéen ñu ne ah mu ne ngeen am ay njiit yu leen di réeral loolu lañu am tey njiit yu réeralaate ku nekk fëll sos saw yoon woo nit ñi nar leen jëmee safara comme nit ñi lekk lañ gëm ak lu xumb ak bañ a jaamu yàlla waaw benn waaye nee na ma ndeysaan démb dañoo am benn njaago bu tuub waaye li ma jaaxal mooy dafa dem tuub ba pare dem bokk ci benn yoon woo xam ne duñu julli duñu woor léegi kooku tuub boobu ba njëriñ la am c'est que dafa am yenn yoo xam ne nit ñi dañ ko def làqatukaay làqatukaay waa ji dafa bëgg fo dafa bëgg a tux sa yàmba dafa bëgg naan sàngara dafa bëgg di njaaloo mu xam ne bu nekkee ci islam di ko def dañ naan ko yow bandi nga mu dem nëbbatu ci benn tariqa di ko def c'est que dañ nañ day wàññi leer ko bëggee wàññi sa leer da ngay da ngay naan sàngara ndax leer bi wàññeeku loolu du diine mbokk julit yi ñun ñëpp dañu war a araamal li ñu yàlla araamloo mooy topp ku réer musiba la topp ku réer dañ ñu ko tere ku réer du la du la jubal ci diine jamais da lay alak loolu dafa war a leer ci ñun képp koo xam ne ki ngay topp xamul dara ci diine jarul topp rawatina nag wattibaay abatilihim ngay topp seen caaxaan yi caaxaan topp nit bàyyi loola yàlla bàyyi loola yonent bàyyi loola sa ndey bàyyi loola sa baay di la jaamuloo ay xërëm loolu mbokk yi ab julit war na ko moytandiku ndax ëllëg yowmal qiyaam ci yàlla lan jëm ci tënk bu gaaw mbokki julit yi ñeenti aaya yi ñuy jël tey lii la ñuy jàngal noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yal na yàlla dëgëral sunu làmmiñ ba du nu génne aayam yi nekk sunu kanam 101 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أسبهوا بها كافرين ما جعل الله من بهيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا ولا وصيلة ولا هام ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون سنبرم جل جلاله كم نمكو باخو دي ديف القرآن دي ووتي te mu tàmm rek di woo ñeen mooy la ñan mooy way gëm yi yaa ayuha alladina amanu saa yoo ko déggee yow mi gëm yàlla yow la yàlla di waxal yow la yàlla di woo neel tekk te taxaw daf lay digal wala mu lay tere yàlla moo baaxoo di woo way gëm yi ci baatu ngëm borom bi subhanahu wa taala mu ne aaya bi li tax mu wàcc yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon taxaw di waaraate muy waaraate benn waay daal di koy laaj ne ko ana sama baay ñu ne keneen ki yonent bi dafa taxaw di waaraate di wax ci mbirum aj naan ayyuhan naas قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله فسكت انت من ين نيت ني يالا فراتال نا تي ين dem leen aji benn waaye ne ko yonent ndax at bu nekk dañoo war a dem yonent daal di noppi bi yonent bi noppee xanaa waa ji waroon naa noppi mu naan yenent ndax at bu nekk la yenent ndax at bu nekk la di répété laaj na ki muy laaj noppi na au lieu moom mu noppi moom miy laaj déedéet muy répété baat yi di ko répété waat fa qaala rasulullahi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne law qultu naam rek la wajaba gis nga waa ji li muy laaj noonu naan ndax at bu nekk dañoo war a dem at bu nekk dañoo war a dem yonente bi ne su ma ne woon waaw rek julli di am problème kon at bu nekk ñun ñii foog ñu aji fal force duñ jëm duñ jëm aji kon noo ngi nii mënuñu dem fii ak Dakar ñu ne ñu dem leen aji at bu nekk fu ñu jëm ah xoolal tey bu ñu ne woon farata la yéen ñi at bu nekk ngeen aji fan la julli di jëm kon loo julli julli julli loo woor woor woor woor joxe azaka da ngay ñëw ci aj rek daanu ndax mënoo ko remplir moo tax yeneen bi ne ko waaye ngalawaay su ma waxatee noppi leen bu leen nekk di laaj mu ne su ma ne woon waaw rek affaire bi am la wajaba su ma qaala zaruni ma taraktukum bàyyi leen ma ak li ma leen indil bu leen yokk bu leen wàññi li ma indi dong jàpp leen ci rek aaya bi daal di wàcc mooy aaya bi ñuy ñuy jël tey keneen ki moom dafa ne yonent bi kan mooy sama baay waaw allahu akbar man abi ya rasulallah fa qaala abuka huzaafa yonent bi ne ko huzaafa mooy sa baay keneen ki moom daal laaj ana sama baay mu ne ko ma nga safara waa ji mer gis nga alxuraan wàcc aaya bi di nu tere yàlla ne yaa ayyuha allazina amanu e yéen ñi gëm aaya bi ñan lay waxal waxul ak yéeféer yi de waxul ak ñi nekk ci mboy mboy yi yaa ayyuha allazina amanu saa yoo ko déggee ñan la mooy nun ñii la du keneen du ma sàmba du ma demba nun ñii nekk ci biir jàkka ji la yàlla di waxal yaa ayyuha allazina amanu e yéen ñi gëm yàlla laa tasalu bu leen laaj an asiya ay mbir mbir yoo xam ne in tubdalakum buñ leen ko leeralee te suukum mu naqari leen gis nga bu laaj loo xam ne te ne buñ la leeralee da ngay mer kon kay yow bul dugg ci loolu yow kay booy laaj laajal loo xamante ne amal na la njëriñ ah laajal loo xamante ne sa diine dina ci yokk laajal loo xam ne buñ la ko leeralee nga jëli nga am njëriñ ci lu bare bari ci sa dund waaye loo xam ne amulul la importance ah waaw yadullahi ñu ne loxo yàlla nga naan waa loxo bi nan la toll tànku yàlla nga naan waa i tànku yàlla yemal ci loolu rek yàlla day gis yemal ci loolu na dafa am loo xam ne ab julit waru ko laaj waaw benn waaye dafa ne di joxe teggin bu ñu war am ci suñu diine mu ne kenn ci ñun su ko baayam ne woon jox ma satala bi lu ko war ah jël jox ko waaye mu ne am papa loo koy doyee est-ce que loolu teggin la ah du teggin yàlla nag moo raw maa kenn warul adressé yàlla wala yonent bi wax yoo xamante ne jaaraduwul jàdduwul ndax kilifa goo fi wekk yonent bee ko gën a nekk kilifa kilifa goo fi rus yonent bee ko gën a nekk yonent kilifa kon bu leen laaj ay mbir yoo xam ne buñ leen tontoo te su ukum mu metti leen buñ leen tontoo leeralal leen rek ngeen am problème bu leen ko def waaw bu leen laaj laaj yoo xam ne problème la leen di indil waaw lu tax nangam lu tax nangam lu tax ab jullit warul wax lu tax waaw yàlla neen nañ julli nga ne lu tax ñuy julli yàlla neen lañ war nga naan waa lan moo tax nit ñi di war man loolu laa bëgg a xam waaye koor ni mettee la tax yàlla di ko sant nit ñi waaw benn waaye laajoon ma ne ko boo gisee nga laaj ko dem ba ci yàlla la nga laaj ko lu tax mu koy wax nit ñi man moom li ma xam mooy wax na jottali naa la léegi nag da ngaa bëgg a xam lu tax boo ko gisee moom yàlla nga laaj ko nga ne ko lu tax waaw gars yi ni ñuy laajee noonu ngeen di tontoo rek bu ñu laajee bëgg a xam ngeen tontu leen ko bëgg a xam bu ñu laajee reewande ngeen tontu leen reewande buñ to laajee ñàkk kersa ngeen tontu leen ñàkk kersa waaw parce que yàlla dañ ko war a weg allah subhanahu wa taala suñu borom dañ ko war a fonk rawatina nag sayyiduna muhammad alayhi salatu wasalaam waaw bu leen laaj ay mbir yoo xam ne bu leen tontoo ngeen mer bu leen ko def yéen ñi gëm yàlla laay waxal mu ne wa in tasalu anha bu ngeen laajee mbir yooyu hiina yunazzalu alquranu jamono ji yàlla di wàcc alquran tubda lakum dañ leen koy leeralal de bu ngeen laajee mbir alquran di wàcc rek aaya bi day ñëw yàlla du bàyyi ngeen ñibbi foog mu leeral leen ko balaa ngeen dem waaw indi leen tontu bi léegi ngir ngeen mën cee xam li leen di jëriñ ci seen dina ngeen def ngeen xam li leen ciy lor ngeen sori ko waaw bu ngeen laajee mbir moo xam ne alquran moo ko leeral rek yàlla subhanahu wa taala day ñëw leeralal leen ko gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla bañ na ci yéen laaj yu bëri yi laaj yu amul benn njëriñ mu ne inna allah harrama alaykum yàlla araamal na ci yéen uququl ummahat ngeen di mooy seeni wayjur waa addul banaat ak ngeen di suul jigi xale yu jigéen ñi waaw yàlla tere na leen loolu tere na leen ngeen mooy seeni wayjur tere na leen ngeen di suul doom ñu jigéen ñi waaye bañ na ci yéen laaj yu bëri wa kariha lakum salaasan qiila wa qaala wa kasratu suaali wa idaatu lmaal yàlla bañ na ci yéen ñett nee nañu qiila nee nañu ku ko wax yéen saa nga de benn waaye ne nee nañ ku ko wax wa qaala ak wax na ñaar yooyu benn leeru ci wax na ak wax nañ ak laaj-laaj yu bëri wa idaatul maali ak sànq seen alal yii yàlla bañ na ko ci yéen ab julli dafa war a moytandiku yii ndax yàlla da koo bañ ci ñun su ko defee nga yem ci li nga xam ne moo lay jëriñ borom bi nee na bu ngeen laajee alquran di wàcc na ngeen yëg ne fa zalika ma la yambagi lakum li annahu min baabi ixfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa aziyatihi alquran aaya baa ngi di wàcc yoon di nga taxaw naan da ngay laaj loolu du teggin da ngeen a war a yaru ci wetu yonent bi ndax da ngeen koy lor waaye nag na ngeen yëg ne man yàlla ndeysaan wala lii yëpp yàlla jaaji julli ji ba pare daan ne afa allahu anha yàlla baal na leen loolu ngeen doon def te xamu leen ko yàlla baal na leen ndeysaan waaw yàlla baal na leen allahu akbar wallahi yàlla bu ñu toppoon kon du baax de afa allahu anha yàlla baal na leen loolu ngeen doon def na ngeen yëg ne wallahu yàlla gafurun xalimun gafurun jéggalaakoon la xalimun ku lewet la moom yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu laa yu aaxizukum du leen jàppe moom yàlla bima saaltum ci li ngeen taxaw ci kanamu yonentam di laaj kon nag comme yàlla day jéggale comme yàlla ku lewet la kon fa tuubu ilayhi tuub leen dellu ci moom yatuubu aleykum mu nangu seen tuub waaw yëg leen ne yàlla day baale bëgg na ngeen am teggin ci seen diine bëgg na ngeen yaru kon dem leen ngeen tuub wastaghfiruhu jéggalul leen ko moom yàlla yaghfir lakum mu jéggal leen wa yarhamukum mu yërëm leen fa innahu ghafurun halim moom yàlla jéggalaa koon la waaye ku lewet la mu ngoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na min husni islaami almar'i tarkuhu ma la yaani bokk na ci li rafetal ngëm yàlla nit lu yoonam nekkul bu mu ci dugg waaw di laaj rek ba ñu xëy wax la benn problème boo xamante ne foofu nga laaje woon mbir mi doo fa jaarati fekk yow yaa ko def waaw di laaj benn waaye daa am doom ñetti doom bu tuddee taw bi abdallah bu tuddee ki ci digg bi abdallah mu tuddee caat bi abdallah yàlla natt ko muy faatu mu woo ñetti doom yi mu ne leen abdallah dina donn abdallah du donn abdallah dina donn mu faatu ñu ne waaw yow yaay abdallah bi dul donn mu ne xanaa da ngeen dof man maay kii donn man maay abdallah buy donn bi kuñ ne yow yaay kii dul donn rek mu ne da xanaa da ngeen dof ñépp bañ ñetti doom yi ku nekk bañ nekk abdallah bi dul donn ñépp bëgg a nekk abdallah bii donn te moom dane abdallah day donn abdallah du donn abdallah day donn ñu ne xam nga nu ñuy def dañ leen wëri borom xam-xam yi ñu leeralal ñu loolu ñu takk seeni bagage dem di wëri ku leen leeralal abdallah day doon abdallah du doon abdallah day doon ñu dajeeg benn waaye mu ne leen sama gëléem dafa réer moom laay wër gisu leen ko ñu ne ko déedéet waa ji wal leen ginnaaw di dem ñu ne ko kaay waa ji ñëw kenn ki ne ko yow sa gëléem gi dafa pat mu ne waaw wax nga dëgg de keneen ki ne ko yow sa gëléem gi geen gi daa daa- dafa dagg mu ne ko wax nga dëgg keneen ki ne ko yow sa gëléem gi day soox mu ne ko wax nga dëgg ñu ne ko waaye nag gisuñu ko mu ne dee gisuñu ko ok génnewu leen leen dof yéen ñett yi ku nekk indi benn ba ngeen ne gis lan yéen kay maa yéen kër buur rek samedi ñu eggali ko insha allah samedi ñu eggali xista boobu bu leen laaj ay mbir yoo xam ne buñ leen tontoo ngeen mer rawatina nag jamono bi alquran di wàcc yàlla baal na leen jéggal na leen yàlla moom jéggalaa koon la ndax ku lewet la xanaa yëgu leen ne xar saalaha qawmum min qablikum lii ngeen di laaj ay nit démb ñëwoon nañ fi laaj ko waaye ndeysaan bañ leen tontoo summa asbahu biha kaafirin dañ koo mujj a weddi gis nga de ay nit laajoon nañ yow yàlla wàcceel ñu bool benn taabul ñu lekk ñu weddi ay nit waxoon nañ yonent wallahi boo ñu booleeg benn yonent dañu xeex yàlla yónni benn yonent ñu ne ko ii wóorul waaye ñu toog fii rek gis nga xar saalaha laajoon na loolu qawmun ay nit yoo xamante ne ndeysaan bañ ko laajee ba ñu tontu leen summa topp asbahu xëy nañ bihaa ca mbir yooyu kaafirina weddi ko ndax dañ ko laaj gëmuñu ko dañ ko laaj rek laaju doon ngand ngand lu doon yëj yàlla ne leen léegi nag laaj ngeen mbir mi indil nañ leen ko acca ñu ne ñoo lànk dafa ñëw kon yéen jullit yi ngalawaay bu leen mel noonu nitu nuux yi nitu saaliha laajoon nañ nitu saalihi lañ lañ laajoon nitu saalihi lan lañ laajoon gëléem ba gëléem nga ñëwee nuñ ko def yàlla leen yàlla lan la leen waxoon ci as suratu suratu sams ah lii gëléem yàlla la bu leen ko laal nuñ def ñu dem cor gëléem gi rey ko ñu dàq bu ndaw bi bu ndaw bi dem nañ man tañ ci biir xeer ba kon gis nga ñooñu lañ laajoon respecté wuñ ko nitu saalix ya wa qawmu isa al maida nitu isa laajoon nañ suratul maida rabbana anzil alayna moo tax yàlla tere ñu ñun jullit ñi bu leen laaj loo xam ne buñ leen ko indilee ngeen weddi ndax xam ngeen ne mënu leen ko bu leen ko def yem leen kese ci li leen seen yonent indil lim leen fi bàyyee bu leen laaj ay laaju dëgër bopp ay laaju ah ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même mu daan yónni sahaaba yi sax danaan innama bu istum mu yassirin dañ leen a yónni pour ngeen yombal bu leen bu leen bu leen taral gis nga banu israil ba leen yàlla ne rey leen baqara rey leen nag bi ibnu abbas nee na bu ñu demoon jël benn nag rek rey amul problème waaye ñu nekk fa naan yàlla ban nag la ñuy rey ban façon nag ñu wax leen ko ñu ne non leer gën ñoo leeralal chaque instant ñuy laaj yàlla di tontu ba mbir mi mujj tar ci ñoom ibnu abbas nee na lamma shaddu shaddada allahu alayhim ba ñu taralee mbir mi yàlla mettil ko ci ñoom te biñ leen waxee lenn dong lañ leen waxoon dem leen ngeen rey nag loolu yomb na waaye ñu nekk fa di jéem a xóotal moo tax gis nga laaj yu bari ak xóotal ak di jéem a taral baaxul ci nit te saa yoo ko sombee doo dem waaw saa yoo sombee taral di jéem a ëppal ci diine yàlla ji di jéem a di jéem dundu naa dundoon naa ak ay nit yoo xam ne bi ñu gisee sunna dañoo wàcc seeni lal ne dootuñ tëdd ci lal ñenn ñi dañoo dem seeni kër damm kuddu yi ñoo ñëw fuñ mujj nooy dañoo mujj génn ci sunna waaw wallahi lazim waaw ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënuma leen koo nettali dund nañ ko fi ak ay nit diine yemal fi nga war a yem jël leen lu ngeen mën yoo ne xuzu min al amali ma tutiqun def leen lu ngeen attan benn waaye ne yonent man damay wor bis bu nekk ñoo ne déet loolu metti na mun naa ko man may gisoo waaye may borom ne déet waaw te ngaa jël ayaamul biit lundi ak jeudi non non mun naa ko fu mujj daa ne laa way su ma xamoon ma jël ci la ma sang ba waxoon li mu nga kon diine lu mu ñu wax nañ yem ci loolu mbokk jullit yi ay nit a ngi nii yoo xam ne dañoo laajoon ay mbir xad saalaha laajoon na ko qawmun ay nit yu leen fi jiitu woon yéen démb balaa ngeen di ñëw min qablikum gis nga yu leen fi jiitu woon yu àndoon ak ay yonent yonent yàlla tontul leen indi leen laaj yi summa asbahu biha kafirin ñu mujj xëy sànni yooyu yëpp nekk ay yéeféer borom bi subhanahu wa taala ñëwaat di jajj ceddo ya lañ daan def mu ne maa jaala allahu min bahira gëlëm googu ngeen di tuddee bahira yàlla indiwu ko de yéen yéen yéen a ko sos bahira démb ca ceddo ga ca arab ya balaa islaam ñëw dañ daan def giléem bu amee doom ba toll ci juróomi biir am doom am doom am doom ba mu nekk juróomi yoon waaye bi mu mujjee am nekk góor maanaam caat bi nekk doom bu góor ñu ne boo mooy bahira lan mooy atteem ah kenn du ko laal dañuy bënn nopp yi pour xàmme ko kenn dootul yéeg ci moom kenn dootu ko rat ci lay nekk rek ba dee boobu la yàlla ne loolu yéen a ko def man indiwuma ko fi man li ma xam mooy man dama leen a bindal rek tàggatal leen ay ay ay ay mala laa leen tàggatal xar béy gëléem naag nangam waaye nag tëraluma leen ay loi naan leen bii mooy sàngam bu am juróomi doom caatloo góor boobu déedéet loolu yéen a ko fi indi di nga loolu tey am na Sénégal am na Sénégal de boo demoon ci àll bi nga fekk fa benn même ci Dakar fii dangay fekk benn xar mu weex tal ci biir kër ñu ne la mooy sarax kër gi kenn du ko laal surtout nag xaru tàpp xar moomu noonu lay nekkee ci kër gi ñu koy jox muy lekk di naan di jaataa yimbi xar bi day nekk ngandum xar moo xam ne buñ ko reyee koñ bi yëpp mën nañ cee añ waaye kenn du ko laal boo waxee ñu ne la xaru sarax la moom dañ koy bàyyi nii rek ba mu dee loolu loolu am na fi loolu da ngeen koy gis ci biir kër yi noonu mu amee xaru sarax la amee ginaarub sarax am béyub sarax am nagub sarax am loolu islam santaane ko loolu ñun ñi ñun ñoo ko sos loolu la yàlla di dàqal jullit naan leen loolu moom yàlla defu ko xoola yàq boobu rek yar xar boobu mu nekk fukki at nga yar xar mu toll noonu ngand bay bugg a dee nga xool di xool ba xar mi daal di médd ñu jël sànni ji mbalit yaa ngi gis fi ay jullit yu xiif yoo xam ne tabaski ba tabaski la ñuy lekk yàpp au lieu nga rey ko sarax leen ko nga naan xarum sarax la sarax kay dañ koy joxe mu dem sarax dañ koy joxe garab dañ koy naan waaw waaye fi ngay gis garab gu ñuy garde sarax gu ñuy garde yàlla defu ko maa jaala allahu min bahira wala saaiba ban mooy saaiba boobu tamit gëléem la waaye gu jigéen la ñoom amoon nañ ko ci jamono yooyu lan mooy seen àtte ci boobu gëléem googu saaiba gëléem la goo xam ne kuy tukki da nga naan bu ma demee tukki ba ñëwaat dara daluma ci tukki bi de gëléem gi moom mu ngoog ngeen doot ko defati dara wala dama feebar su ma wéree gëléem gi libéré naa ko waaw fa naaqati saaiba wa jaalaha kal bahira ñu dem def ko comme bahira kon ñaari gëléem a ngi ni yoo xam ne ñaari gëléem yi ci jamonoy jaahiliya kenn dootu leen woon laal di leen utiliser kenn du leen lekk kenn du leen rat kenn du leen war mooy ban bu njëkk bi mooy boo xam ne dafa caatloo góor beneen bi mooy gëléem gi nga xam ne waa ji dafa feebar daan ne bu ma wéree wala dafa tukki woon war ko daan ne bu ma ñibbee boobu mooy saaiba boobu tamit yàlla defu ko ban gëléem moo ci tegu mu ne wala wasila gëléem googu mooy ban gëléem gi nga xam ne dafa am doom bu jigéen ak doom bu góor wa qaalu wasalat axaaha wa hiya alwasila daa am doom bu góor ñuy xaar mu amaat doom bu góor ba ñu jaay ko wala ñu rey ko mu am doom bu jigéen ñu ne ah bii day moom topp nay mbokkam kenn dootu ko laal moom it beneen gëléem bi ban gëléem la wala haam ñu ne boobu mooy gëléem gi nga xam ne qad xama zahrahu moom dafa protéger ginnaawam nan la ko protéger moom gëléem gi bu njëkk bi moom mooy bu njëkk bi moom mooy nu mu tudd kay laa soxla bahira ñaareel bi mooy saaiba ñetteel bi mooy wasila ñeenteel bi mooy xaam bii ñu tuddee xaam lan moo tax ñu tuddee ko xaam moom it mu ne dañ ko araamal ci seeni jigéen jigéen ñi duñu lekk ci yàpp bi du jigéen ñi duñu naan ci soow bi lu ko waral ndax dañoo nësër ci moom dañ ko nësëral yàlla yi moo tax ñu ne moom mooy haam dañ ko nësëral yàlla yi li yàlla yee ko moom ba pare jigéen du lekk ci yàpp bi même bu demoon ba rey ko sax jigéen du lekk yàpp bi ñaata façon yi gëléem la ñeent benn yàlla wàccewu ko nit ñi ñoo ko sos loolu alxuraan naan ibtadauha ma katabnaha alayhim gis nga sos ci diine te li doy waar mooy nit ñi bu ñu sosee ba pare duñ ko respecté dañuy dekk jekki di ko jalgati te ñoo ko sosoon moo tax sos ci diine baaxul yàlla dañ ko tere gis nga lii jaahiliye yi ñoo ko soloon ñoo ko sosoon ci diine yàlla ji tabaraka wa taala te dara amu ci benn wéru ci waaw waaw mu ne haam aljamal yaxmi zahrahu lil aliha mooy gëléem la goo xam ne dañ ko jël sësal ko ci yàlla yi ne yàlla yee ko moom moom mooy haam waxu kenn laal jox nañ ko sunu yàlla yi ba pare borom bi nee na walakin alladina kafaru yaftaruuna ala allahi alkadib wa aksaruhum la yaqiluun borom bi nee na walakin waaye li fi ne alladina kafaru ñi nga xam ne ay yéeféer lañ gëmuñu yàlla yaftaruuna dañuy sosal di fenal alallahi ci yàlla alkadiba ay fen gis nga lii nii ñu wax gëléem gi nangam gëléem gi nangam gëléem gi nangam gëléem gi nangam kan moo ko santaane kenn waaye ñoom ñoo ko def sos ko ba pare di fenal yàlla naan yàlla moo ko bëgg war sos ci diine baaxul bëri na tey lu ñuy wax fii ci Sénégal naan lii lii lii dara amu ci ñoom ñoo ko keree rek dara wiru ji waaw dara amu ci ba ci bidaay ba ci bidaay kenn du socc guddi kenn du bale guddi kenn du raxas guddi kenn du jaay këriñ guddi kenn du ñaan xorom guddi fan yee passé ma jékki-jékki rek heure yi ma yónnee lañ set booy bi ñëwaat ne ma borom bitig bi nee na du jaay lay seen guddi ma ne ko demal beneen bitig demal beneen bitig mu dem indi lu tax kenn du jaay lay seen guddi lu ci nekk lu tax kenn du jaay xorom guddi lu tax kenn du bale guddi waaw benn waaye gisoon ma may socc mu ne eh sa yaay ngi dund ma ne waaw mu ne ku am yaay du socc guddi ma ne ko kon de dina dee ndax bu dee loolu mooy tax mu mu dee socc guddi kon de du ma ko fekk kër ga moo xam nga yéen seen njàng yi moo leen alak ma ne ko déedéet njàng yi kay moo ñu defar ah waaw waaw moom dégg nga yéen gëmu leen dara bañ a gëm bañ a gëm ñu gëm yàlla waaw ay fóot àllarba kenn du def lii kenn du def lii doo lekk mukk doo dégg mu ngi ne kenn du añ bisu sàngam doo ko dégg de walla kenn du ndékk bisu sàngam waaw kay doo ko dégg boobu kay bokku ci yeneen yi kay moom bidaa yi kay boobu bokku ci ah ah waaw ay xal kenn du ko tibb guddee bëri problème Sénégal non yooyu ay sos la te dara bokk ci diine imagine léegi ki nga xam ne dafa soxla dara dafa soxla xorom guddi togg reeram ba pare xoromam jeex ah léegi ñu ne ko kenn du la jaay xorom guddi kooku fu mu jëm te fi ñu ko teg du benn diine léegi waa jooju noonu la naree reeree xorom ci ceeb boobu amul xorom wala cere amul xorom jooju te dëkk bi ne xorom da fi gàññ non vraiment am nga ne loolu xel nanguwu ko sax ak leneen ak leneen ak leneen yoo xam ne mu ngi fii ah te dañ koy tuddee diine te du diine mbokki jullit yi moo tax dégg ngeen borom bi lu mu ne walakin allazina kafaru waaye yéeféer yi yaftaruuna ala allah dañuy fenal yàlla di ko sosal di ko duural ala allah ci yàlla alkadiba ay fen wa aksaruhum li ëpp ci ñoom ñooñu di sos ci ay mbir di sosal yàlla laa yaqiluuna amuñu xel gis nga amuñu xel ñàkk xel mooy lii yow la ko yàlla wàcceel yaa ko moom nga naan man kay lii araamal naa ko ci man dootuma ko lekk pare naa ci te yàlla ne pour yow la mataan lakum wa li an'amikum nga araamal ko nga même yonent bi yaa ayyuha nabi lima tuharrimu ma xalla allah lak te yow yonent bi da ngay araamal lu yàlla daganal ci yow gis nga moo tax ab julit waroo xool lii nga naan lii lii lii nii lii naa déedéet lu diine wax lool la lu diine tere bàyyil su diine santaanee def su diine teree bàyyil su diine rafetloo rafet na bu diine ñaawloo ñaaw na waaw loolu de diine sax rafetlu na ko waaye man daal wax dëgg yàlla ah man man man nanguwuma ko ah kon léegi yow yow yow yaa gën a rafet yàlla organisation yàlla ne lii baax na alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir waaw sunu biir kër yi boo fi doon dugg lu bare bare bare bari bari bari duñ dañ koy dañ duñ ko def surtout guddi gi nag du guddi gi wala ki reer ci bool yi bool nga reer ci naan ci ay kaas lekk ci ay kudd ndoxum raxasu mi yépp ñu dajale ko noonu mbóot yeeg unku yeeg lëppaa lëpp yeeg sinnax yi fanaan ci di dàqee bër set du ñu raxas bool yi ba mu set aj ko eau de javel ko aj ko kër gi lépp set bu ñu xëyee ñëpp dem mais de ak tegal bale bi kenn du bale guddi xam nga ne foofu mbelantaan yi dañ fay yendu dañ fay fanaan mbelantaan yi dañ fay fanaan ñëw di lekk li fa ruus et puis lu tax kenn du bale guddi da ngay dàq suñu wërsëg yow xanaa xamoo bale guddi wërsëg bi ngay génne ah bale mooy indi wërsëg kon sotti ndox ci buntu kër yi sotti ndox buntu kër yi sotti ndox ci oto yi sotti ndox ci taabal yi waaw dañuy dëpp sama sama xale yaa ngi ni ñu ngi nii toog waaw am naa ndaw soo xam ne chaque jour ma nettali leen ko fi day jaay marché saam bii bayal bi ñuy jaay bu ñu jullee fajar ba pare moom fa lay jaar waaye saa yu séenee ñuy ñëw mën a xale yi day taxaw ay ma séenee may ñëw day taxaw te yàlla lim ko nattoo mooy comme ñun bu ñu jullee fajar ba pare dañuy dem école su nee tëll rek ñu ne tëll ci bayal bi mu taxaw benn bis ma wax ko xale yi man leen gis ngeen maire bi ñu ne man ko xam ngeen lu tax muy taxaw fii booy xale yi ne ma déedéet man leen ñun lay bañ a dajeel xale yi ne ah ma ne waaw ndeke booy jàpp nañ affaire bi benn fan ñuy ñëw rek mu ne tëll ñu ne tëll rek mu taxaw man maa ngi jiitu ah man maa ngi dox ndeke xale yi taxaw nañ di ko xaar mu taxaw xale yi taxaw man géegu pour man xale yaa ngi sama ginnaaw ma dox dox dox dox dox gestu gisuma benn xale ma tiit ma daw ti- bayaal bi dama ko daw ma ñëw rek gis leen ñu taxaw ma ne lan la ñu ne meer bi ma ni suux rek ma gis ko moom la man leen ij bay jaar leen ni bay leen kii waaye di ree quoi daal di yàlla saas fii lañ doon taxaw bu papa papa ñëwuloon bu papa ñëwuloon fii la ñuy taxaw ba naaj bi génn wala nga gëmloo ñu gëmloo ne booy xëy bul daje góor te yow nga fanaan ci ginnaaw góor ah nga fanaanoog ay góor sa biir néeg kii fanaanoog jigéen ñu ne ko boo xëyee bul dajeeg jigéen booy xëy mu ne ah ñu ne bul dajeeg jigéen de te yow nga bàyyi ay jigéen ci biir kër gi na ci koo xam ne loolu bu tasee ak góor bu tasee ak góor day dëgg.
day dëpp dañuy dëpp waaw boo dajee góor da ngay dëpp ba egg fi nga nekkoon nga delluwaat à zéro man dama ci boppam ma doon def ma woo ko ma ñëw ko jox ma ko doon ñaar daf laa woo ba nga ñëw nuyul ndeysaan wallaay moom kay dëkk bi yëpp loolu la da leen yàlla dimbali da leen yàlla jubal génne bidaa yooyu ci suñu xel wërsëg yàllaa koy joxe amul kenn ci ñun kuy indil sa bopp wërsëg yàlla moo la koy baaxe te yàlla bu la joxee wërsëg wallahi dajeeg góor ak dajeeg jigéen ak dajeeg dëmm ak dajeeg wërsëg bi kenn mënoo ko maa yaftahu llahu linnaas lu yàlla wax ci loolu yéen ñi jàng alxuraan maa yaftahu llahu linnaas min xayrin fala mumsika la wa ma yursil jeex na yàlla nee na bu ma indilee nit wërsëg kenn mënu ko téye waaye su ma ko téye kenn mënu fexe ba waa ji jot ci lu koy leer na léegi nag yow nga bëgg a jàpp ne man kay xamoon naa ne kii sikkimam bi bi ma xëyee fajar dajeeg moom wan naa tey dara du baax waaw ndeysaan ci ci ci ci portable yi am na benn film image u Mickey benn Mickey boo xam ne dafa fay ñaani visa quoi gars yi def ko ay montage nee na day ñaani visa mu yor saakam di dem rek benn xaritam daal di koy woo daal di wax turam quoi xarit bi nag dafa leel leel bu ñàng gis nga ko ah ko ci en pulaar lañ ko def montage bi ci en pulaar waaye li ci doy waar mooy dafa am saaga mu ne ko oo naa Amadou oo naa Amadou mu gestu ko rek ne ko saaga ko ci pulaar ne ko yow nangam xamoon naa bi ma xëyee suba dajeeg sa bopp saagawaat xamoon naa du ma am visa soo ma moytul dinaa la bule daa di saagawaat waa ji mu waa ji ndeysaan ne ko lii yow lii yow lii jàmm la lii visa jar na ko boo amul visa demal nga jël gaal yéegal ci gaal yi xam nga xoolal rek gëm ne man su ma xëyee suba bu ma dajee ku leel ku leel sama aajo yëpp lëndëm na bu ma dajee muuma du ma am dara bu ma dajee lafañ du ma am dara bu ma dajee non ñun duñu ay nit ah te tey jii ñooñu bu ñu doon ay milliardaire woolu la nga ñëw tey ñun ñu toog fi yëpp bu benn gumba woon ñu fajar daal ne soxla naa la daal woowee téléphone heure bii ne la fekk wa xam nga ne waa ji gumba la waaye milliardaire la mu ne la suba 8 heures soxla naa la sama kër di nga jàkkaarloog moom fajar gi de wala ah uhum, kon nag yooyu ay caaxaan la ñooñu amuñu bay joxe yàlla moo yor jullit bu xëyee day tàllal yàlla loxoom yaa rab yaa rab yaa rab bi ñaan ko dem waaw benn borom xam-xam démb daf ma yónnee bu nekk Arabie Saoudite daf ma yónnee benn vidéo boole ci benn lettre mu ne ma benn borom xam-xam dafa am ku ñëw ci moom ne ko nañ dem ci diw mu régleel ñu suñu problème buuru sàngam nañ dem mu ne ko lan laa fay wuti borom man ma romb koo xam ne buntam du tëju may dem di fëggi bunt pour ñu ubbi ma du ma ko def mu ne ko kan moo dul tëj buntam mu ne ko yàlla te buur bi boo demee da ngay fëgg mu ubbi man dinaa romb buntu kër gu tëjuwul may dem ci kër guñ guñ tëj di fëgg fii ñu tijji laay dugg may yàlla yàlla buntam tëjuwul gaa yi yàlla buntam tëjuwul borom bi tabaaraka wa taala ku mu ubbilul rek yow la ndax buntam tëjuwul waaw bunt yi tëjuwul de ci ñun ñii rek la ñun rek la ñun la ñun la waaye buntu yàlla musul tëj te du tëju ku ñëw dugg la te ku nekk soxla bi nga indi ak façon beneen keneen indi ñun ñëpp bokk ñu soxla ci kanamu yàlla te ñun ñëpp da koy régler waaw mu ngoog kon nag nan defaraat suñu digganteeg suñu borom bu ñu defaraatee suñu digganteeg suñu borom rek mbir yëpp daal di yomb suñu borom nee na jalla jalaaluhu wa isa qiila lahum bu ñu leen waxee ñoom nit ñi taalaw ñëw leen ila ma anzala allahu ci li yàlla wàcce wa ila rasuli ak li yonent bi indi qaalu nga dégg nit ñi naan hasbuna doy nanu maa wajat naa li ñu fekk alayhi ci moom abaana sunuy baay dégg nga li alxuraan la lii nii ku ko wax Sénégal ñu ne gis nga kii day tooñ wala man téere bi ma yor moo ko def yéen seen téere yi yor dafa ko ah sama téere loolu aaya bi ci sama téere rek la nekk wa iza qiila lahum bu ñu leen waxee taalaw ñëw leen yéen nit ñi ila ma anzala allah ci li yàlla wàcc mooy alquranam bi ñëw leen ci loolu wa ila rasul ñëw leen ci sunna yonent bi qaalu nga dégg ñu naan ñoom nit ñi hasbuna doy nanu maa wajadna alayhi abaana ñun dey sunuy bàyyi li ñu nekkoon démb ak barki démb doy nanu ndax man wax dëgg yàlla li ngay wax ni fi dëkk bi xamuñu ko quoi man li ma jaaxal mooy sawaaja non li ma jaaxal mooy yéena seen mbir mi lu bees la lii la kañ la fi ma ne ko déet sëñ bi da ngaa juum de lan moo bees ibaadu ma ne ko déet ibaadu du lu bees ibaadu du mooy sunna mu ne waaw mooy sunna ma ne ko alxuraan ak sunna dafa bees alxuraan ak sunna sunna ak tarixa lu fi jiitu mu ne sunna ma ne ko kon kay tarixa moo bees sunna kay moom la yonent bi indi woon kay beesul julli taf sa loxo sa dënn ak julli wàcce ban mooy bu bees wàcce mais tey boo defee ni ñu ne lii lu bees la yow sa léegi am na benn paa ndeysaan fa xëy rek xabdu allah nga dégg paa yi naan Moussa de léegi julli xale yi lay julli julli xale yi waaw li ma julli xale yi julli xale yi ñu ne ah mu ne mu ñëw ci man man ne léegi dégg nga li ñu ma wax ñu ne léegi julli xale yi laay julli quoi julli xale julli boobu koy mooy julli mag ñi boobu la yonent bi julli woon boobu la sahabatul kiram julli woon boobu la taabiin julli woon man kay boobu du lu bees loolu dama koy dégg lu bari.
kon nag dafa am yoo xam ne nit ñi saa yu ñu leen waxee kaay leen ci li yàlla ak yonent wax nga dégg ñu ne ñun doy nañu li ñu suñu bàyyi bàyyi woon déedéet alquran moo ko wax mi ngi nii yéen ñi yor kaamil français yi wax leen ko man ñu ñu jàng français ñu dégg ko lu mu wax yéen ñi yor kaamil français ah wa iza qila lahum sey bu ñu leen waxee ñoom nit ñi ngalawaay ñëw leen ci li yàlla wax ak yonent nga dégg ñu ne xasbuna doy nanu maa wajadna alayhi abaana lanu fekkoon sunuy baay allahu akbar yàlla mu ne awalaw kaana abaahum laa yaalamu même seeni baay bu ñu xamul woon ne lii la dañ leen di topp ci lool laaj la même sa baay su fekkee moom lii muy def xamul woon ne lii la moom lee la fi fekkoon waaye xamul da ngay ñëw topp sa baay déedéet ñun ñëpp dañoo fekkoon sunu yaay yi ñu leen di rawle ci wanag yi sunu maam yi bu ñu doon am doom fan la leen di yóbbu ci wanag yi tey ku fi sa soxna di am doom nga yóbbu ko ci wanag bi problème kaso nga jëm lu daa yóbbu ko ci wanag bi démb ku fi dee rek dañuy dem gas suul wala kan ci ñun fi moo ñeme am néew léegi léegi ci guddi gi dem gas suul ko boo ko defee suba nga dem police léegi ñu jël si la gis nga kon lu nit ñi lu tax bu ñu leen ne kaay leen ci li yàlla ak yonent wax ñu naan lu ñu sunu baay nekkoon na même bu fekkoon ne seen baay amuñu conscience amuñu xel da ngeen leen di topp ci loolu ah kon nag alxuraan mi ngi nii dafa leer naññ nit ñi ñoo war a am xel ndax yàlla lim ñu wax dafa leer kon ndeke sa papa moom wala sa yaay wala say maam ñooñu liñ fi fekk am nañ droit def ko ñoom ndax loolu lañ xamoon mais yow mi amoo droit loolu alaw kaana abaauhum laa ya'lamuuna shay'an wala yahtaduun même bu fekkee seeni baay xamuñu woon jubuñu woon rek da ngeen leen di topp déedéet kon yow jàng nga yow xam nga yow gëstu nga yow laajteel yow yow amoo droit fekk say maam dañ doon wër garab gi rek yow tamit foog nga wër garab gi waaw kuy tukki foog nga dem tàgg tàggu guy gi déedéet dama nga tàggu ji yàlla waaw kuy tukki foog nga jaar doo jaar ci buntu kër gi da ngay tëb sàkket yi déedéet ñu ne waa lii na nga ne lii nga fekk maam yi def demal nga def ko laa da ngaa dëgër bopp déedéet ne ko papa man du ma def loolu ndax loolu du diine yàlla dane waatul buyuta min abwaabiha bu ngeen di jaar jaar leen ci bunt bi kon mbokki julli di ci gàttal lii mooy sunu darsu tey ñoo ngi jégglu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu